ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nu ñu koy defee samedi bu nekk di leen dégtal seen émission samedi mag euh, tey seen émission samedi mag dina waxtaanee wàllu yor kopparu réew mi am am organe de contrôle yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci réew mi IGE ci la bokk OFNAC ci la bokk Cour des comptes ci la bokk ak yeneen kuréel yoo xam ne sàmm alalu réew mi moo leen tax a jóg OFNAC moo nekk kuréel bu mujj bi nga xam ne juddu na. ci nguuru président Macky Sall mu samp ko ne euh, li nga xam ne moo di OFNAC pour ñoom la OFNAC njëkkoon génne rapport bu juróon coow lu bari xam ngeen ko mooy rapport bi nga xam ne mooy Nafi Ngom Keïta moom la génnoon rapport boobu sax moo sababoon li nga xam ne moo di jëlee guñ ko jëlee ci fi nga xam ne moo di OFNAC ndaxti bëri woon na coow lool ci fi nga xam ne moo di rapport boobu le Euh, ginnaaw si loolu nag ñu teg fa bu njaay Jaxate bañ ko fa tegee ba léegi ñu ngi ci 2018 war nañ doon yaakaar ci moom au moins ñaari rapport mu génne ko mais génneel nañu rapport 2016 gëstu nañ ko boo xool bu baax a baax li nekk ci biir rapport boobu dañ ko waxtaanee ci biir rapport bi ndax kenn ki nga xam ne euh, moom daanaka jàngatam lu baree bari rapport bu ne dina ko gëstu Modiñan dinañu dab ci biir waxtaan wi ngir rek euh, ñu fexe ba waxtaanee rapport bi waxtaanee tamit est-ce que corps de contrôle yi li nga xam ne moom lañ leen sas ñu ngi génne rapport yu mucc ayib leeral askan wi ne ni ñu yoree seen alal méngoo na ak yoon loolu dañ ko waxtaanee ak Modiñan dañu dab ci biir waxtaan wi ah, bu ñu noppee ci loolu seen deuxième partie dinañ waxtaanee qualification gaynde yi. gis nañ ne Sénégal joué na kon Soudan fii dóor ko trois buts à 0 dem fekki ko dóor ko 1 0 ñu qualifié Coupe d'Afrique waaye coow li bari na trop ci prestation bi nga xam ne gaynde yi def nañ ko saa bu ñu waxee ñu ne waaw la qualification moo ci mooy l'essentiel c'est vrai mais dañoo bëgg a jël Coupe d'Afrique moom lañ joxe comme moo d'ordre ne Coupe d'Afrique bi ñu jëm 2019 gaynde yi dañoo war a gagner li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique pour gagner Coupe d'Afrique nag dafa war non ni nga war a méngoog doole ca dëgg-dëgg ba tax euh, ci mbir moomu moomule dañ fi dalal ki nga xam ne moo di Sayer Seck Sayer Seck euh, moom dinañu euh, ñëw fii ci deuxième partie bi ngir rek bokk ci biir waxtaan wi ñu wax ñu tamit lan lañu jàpp ci li nga xam ne moo di prestation gaynde yi ak it lan lañ war a jubbanti ak football Sénégal fu mu toll ndaxte moom moo yor ligue professionnelle bi te seetlu nañ ne amul benn club sénégalais néew na ñuy jàll premier tour éliminatoire li nga xam ne moo di coupe de clubs yi ñuy futba lu tax suñu championnat bi bëri na coow tamit gis ngeen ne daaw métti woon na trop wakaam génnaloon nañ ko dugal ko mu bëri club yi jànkoon rek ay jafe-jafe suñu deuxième partie incha allah loolu la ñu fas yéenee waxtaanee waaye laata loolu ñu jukki li nga xam ne moom la yéenekaay yi fësal say jii ci samedi bi le quotidien ñëw ci accord de siège avec l'État Marif une fondation en or moo di yéen a ngi fàttaliku xam nga dañeen fi jële dañ fi jëlee woon euh, benn ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ah mooy turki yi nga xam ne mooy Yavuz Selim ñoo fi nekkoon Marif ñëw jox nañ ko nag turki yi nag dañoo am statut diplomatique ak immunité parlementaire le quotidien dikk ci euh, loolu nekk na loo xam ne yéen i kat de quotidien na ko tey liggéey député yi Seydou Diouf dénonce le mépris des ministre waaw ah, ministre yi waaye loolu nag day fekk tamit député yi seen taxawaay mucc ayib waaye bu nekkee ne député ministre lu mu mënta defit bu ñëwee nga tàcc ko sar xolle ne yaa fi mën ah day nekk loo xam ne lu doy waar la Walf Quotidien ñëw ci la concession de l'eau filet à Suez Macky sedd les marchés juteux au Français mooy la ma waxoon ne fi mu nekk nii dañ dana wax patriotisme économique waaye est-ce que ñu ngi koy doxee parce que seetlu nañ tamit ne ci lu bëree bëri barki Demba Ndiaye yéen a ngi gis coowul Auchan bi nga xam ne président dem na ba woowaa UNACOIS na leen fi mu nekk nii dañuy arrêté lépp lu jëm ci emplacement Auchan yi ah donc nekk na loo xam ne coow lu bari la. parce que ni français yi nguufaane économie sénégalaise métti na métti goo xam ne ñëpp koy joytu nekk na loo xam ne euh, moom la Walf Quotidien fësal tey jii. ne wàllu ndox mi SDE daf ko nar a ñàkk ñu jox ko Suez mu nekk une haute entreprise française Dakar Times affaire Tosyal Mittal Kumbalitos les éléments de la haute trahison c'est la une du journal Dakar Times Tosyal benn entreprise turque la boo xam ne euh, moom lañ jox exploitation fair Falémé pendant trente ans jur na coow lu bari nag ci nun leen ko joxe ak li nga xam ne moo di wareef bi ni leen ko joxe est-ce que jaar na yoon wala jaarul yoon loolu yëpp cow lu rëy la boo xam ne fan yii yëpp journalistes yi ñu ngi ciy def gëstu di ko wax. beneen mbir mi source A pourquoi le promoteur Mohamed Diagne risque de retourner chez le juge déféré avant de bénéficier d'un contrôle judiciaire dans une affaire d'escroquerie foncière à Diass l'opposant à une coopérative d'habitat des travailleurs de l'aéroport Léopold Sédar Senghor source A moo ko titré. las lii coow lu rëy rëy la jur fi mu nekk nii moo di benn rapport bu Human Rights génne ne ci biir fi nga xam ne moo di euh, ci lekkool yi ni di jàngalekat yi dañuy sàkku xale yu jigéen yi buñ jotee ci ñoom di leen jox ay notes yu baax loolu nekk jur coow lu baree baree bari Human Rights Watch moo ko génne du benn ONG buy dox ci droit euh, dolom génn ko nag rapport bu jur coow lu baree bari démb Serigne Mbaye Thiam am na lu mu ci jotoon a wax ne rapport boobu euh, teguwul ci lenn loo xam ne gëstu bu scientifique la tey enseignants yi ñoo génn rapport sur la sexualité à l'école les enseignants font fausse sur Human Rights Watch mais des étudiantes confirment l'ONG américaine loolu moo nekk à la une di leen waxtaanee ARMP ñu ne ARMP Sayer Niang moo nekk ARMP dañ ko waxtaanee. te à la une du journal L'As moom lañ ci génne les enseignants font fausse sur Human Rights Watch alors Libération nous vient avec opération Pangia guerre contre le business des produits pour booster l'activité sexuelle Interpol frappe à Dakar c'est la une du journal Libération ba tey rapport Human Rights Watch boobu suscite on tollé moo nekk ci une vox populi coow lu bari révolté les syndicats d'enseignants décrit le rapport de Human Rights Watch et puis euh, Saourou Sène SAEMS c'est un semblant de rapport Abdoulaye Ndoye CUSEMS l'image du pays a été salie pour des ambitions inavouées Cheikh Mbow cela me pose problème mais Human Rights Watch euh, persiste ci loolu donc euh, nekk na loo xam ne Vox Populi titre na ko à la une enquête toujours la fureur des enseignants par rapport ak rapport bi nga xam ne Human Rights Watch def na ko euh, mu nekk la fureur des enseignants enseignants yi mer nañu lool ci li nga xam ne moo di rapport bi Human Rights Watch génn présidentiel euh, transhumance tous azimuts ruée vers le maquis xam nga léegi moom xeetu transhumance euh, dafa mel ni sax léegi bu sénégalais yi dañ ko ñàkkal fulla ñu bari ña nga dem te waxoon fi wax yu rëy moo taxu ñu doon indi rubrique fàttaliku mu nekk à la une du journal Sud Quotidien donc euh, voilà très bien les échos les échos génneel leen ma les échos bi bëgg naa ñi ngi ma ko parce que dina bokk ci lu ñuy waxtaanee les échos euh... déclaration de patrimoine la présidence le ministère de l'économie et les maires mauvais élèves sur une liste loin d'être exhaustive de 125 agents de Amadou Ba, seules 66 déclarations ont été faites, seulement 7 à 62 assujettis ont fait une déclaration de sortie seule, 8 maires ont fait leur déclaration. Human Rights Watch vend Serigne Mbaye Thiam, il sait bien que l'introduction de l'éducation sexuelle est en discussion partout. lu tax mën nañu génne déclaration de patrimoine parce que lu ci li nga xam ne moo jëm ci liñ doon xaar ci OFNAC nekkoon na déclaration de patrimoine ñu kañ ko wax ci lu baree bare baree bare léegi kuy nekk responsable da ngay def déclaration de patrimoine mais ci rapport bi nga xam ne OFNAC génne na ko am na ci lim ñoom ñoo bind de seen rapport ne lu toll ci trois cent et poussière yu nit nekk ay kilifa war a def seen déclaration de patrimoine defuñu ko defuñu ko te jaarul yoon moo tax ma ne tey dinañ waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci rapportu OFNAC boobule di gërëm di sant Mody Niang bi nga xam ne moom lañu fas yéene ànd ak di Niang fekk nañu ci biir waxtaan wi euh, tonton ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Pape. waaw di rafetlu nangu gi ñu nangul ñëw ci émission bi. waaw yow de ñëw rek laa war a def maa ngi jégalu tuuti nag ndax quelques minutes yi dëkk bi waaw dëkk bi dëkk bi benn oto bu laaloon morom ma na tey moo la xam naa dëkk bi dafa métti li ma lay njëkk dama lay njëkk fii rek laa lay njëkk indi ci transhumance bi lu <laughs> doy kii man la parce que man foogoon naa ne loolu wax fa dëgg neex yàlla ci nguurub Macky Sall 2012 moom mi nga xam ne mi ngi leen tuddee woon ay lan mm. euh, euh, des rats mm. tey poisson lañ tey mm. tane nañ sax parce que nee na poisson lañ tey tuddee woon lañ ay rats parce que moo ko waxoon wal fajri émission bu wér des rats génne woon qui sortent du bateau en perdition en perdition rat tey jii sax tane nañ léegi jël lañ man loolu man jaaxal na ma étique politique au Sénégal xam nga Pape loolu ñëpp la jaaxal mm-hmm. euh, damay dem a dem ba yàgg man ci sama bopp man man réew laa nekk. Uh-huh. ak yan sénégalais laa la parce que am na lu ma jàpp loo xam ne lii gor nit rek laa wax. Uh-huh. waru koo mën a def rawatine nit koo xam ne kii danga nga amul njaboot danga nga ami soxna danga nga ami doom. Uh-huh. yooyu dëkkal waxuma sax ñi la wër ñi gis la démb ak bërki démb fi nga sa péete. ak li nga daal wax. ak ni nga dugge woon ca loola ak na nga ca sóoboo woon. foofa jeex ñu teg cay weer walay nangam nga dellusi ci ku bees ki la nga daan wax kee ci lu baax nga ko koy wax moom la nga ko daan wax moom ci lu tegganuwul nga di ko wax këli te ñëpp di la dégg loolu googu ñàkk ngor ak ñàkk wekk sa bopp ak ñàkk wekk sa ñooñ man daf ma ëlëmal mm-hmm. daf ma ëlëmal Sénégal xàmmeetuma ko parce que li ñu naan valeur cardinale yoo xam ne baax yoo xam ne ci la Sénégal toogoon léegi da nga naan ana baax yooyu ana nit ñañ daan def référence royukaay démb ak bërki démb mm-hmm. dafa mel ni amatul ci réew mi te ñooñu ngay wax nga xam ni nga baal ma àq ñu ñàkk jom lañ ñu ñàkk ngor lañ li tubaab lañu di wax ils n'ont aucun sens de l'honneur et de la dignité amuñu lu lul seen bakkan rek lañ topp nafsu ak seen fu seen fu seen fu seen fu seen njëriñ nekk loolu nag tabaxul adduna mm-hmm. man dëgg-dëgg man daf ma li ma la wax daf maa ëlëm Sénégal ni mu mel loolu ndax ñooñu ñu ñàkk ngor ñooñu ñàkk jom ñooñu amuñu lu ñuy bañ amuñu kii te amuñu wegeel sax ci seenu njaboot waxoon balak Sénégal mm-hmm. waaw parce que loolu am na solo mm. léegi nag ñu dugg ci yor alalu réew mi fu mu toll ñu dugg ci laata loolu damay def benn mbir rek. Mhm. comme na ma koy faral di def. xam nga mhm. nee naa leen léegi dama am rubrique fàttaliku. waaw dootuma waxati. du ma waxal nit na yaa waxoon lii. la nga waxoon lay génn rek teg régi ñu seetaan ba ñuy samp nag li nga xam ne moom la ñu président Macky Sall waxoon ne nag loolu moo fas yéene doon taxawaayam ñu seetaan loolu dellu si nag tàmbali waxtaan wi ak Mody Niang taxawal dama décidé ko mooy dañu fas yéene sàmm alalu réew kooku nag valable na démb waaye tey la gën a valable te li tax mu gën valable tey mooy dama samp yeneen kuréel yu bees yoo xam ne pour ñu ànd ak man di liggéey war nañu xam ne déjà benn ñëpp daañu def ci yenn fonction yi seen déclaration de patrimoine waaye nag muy office national de lutte contre la fraude et la corruption dafa am ay pouvoir yoo xam ne daf koy may mu saytu te bu saytoo aajowul sax muy jox président rapport bi mën na ko déposer directement ci yoon maanaam ci procureur la rek loolu day wane daal gouvernance bi nga xam ne Sénégal song na ko te GIABA muy kuréel gi saytu si Afrique sowu jant wàllu woowu félicité Sénégal ñu jiitu si tam ci wàllu taxawaay euh, te loolu lu am solo la pour euh, préserver les ressources yi nga xam ne alalu réew mi waaw <laughs> <laughs> xam nga Pape euh, kilifa dafa am lu ñu ciy séenu hmm. la ca njëkk mooy sa kàddu nga sàmm ko hmm. fàttali nga ko fii Mm-hmm. sëriñ Abdoulaye la mu ca waxoon. Mm-hmm. booy seet nit wax ci démbam ak jëfiteem da nga leen di méngale. Mm-hmm. boo ñaandee rek nit a ngoog. waaye bu ñu waroo rek wutil keneen dolli ca na gor wax la koy tënk. waaw gor wax da koy tënk. waaw loolu sëriñ Abdoulaye Xaat moo bu wér a wér man bu ma seetaanee lii damay xaw a sax am kersa. parce que quand kii c'est le président de la République te bañ ko daan fal lu mel nii la doon wax. wax na ko ci fii wax na ko fenn nee na bu ngeen ma fëlee danaa samp doxalin woo xam ni wu leer naññ lay doon wu sell lay doon wuy jub lay doon une politique sobre transparence et vertueuse looloo tax kuréel yii ma wax maay wax mooy président mhm. ma samp ko muy office national pour la lutte contre la fraude et la corruption da ko jiitu mu fekk la cour de répression de l'enrichissement illicite mu yee ko ñu CREI waaw ba mu dajalee ñooñam fee ci Mbóojeen mun leen xam ngeen ne CREI yi kat delloo si naa ko waaye ñooña ma nga joxoñ baaraam ci ña fi nekkoon waaye of naag bii nag pour nun la ma di leen yëgal leen je ne protégerai du ma du ma làq kenn te of naag bii ma def dana xeex ger dana génn ci réew teg of nag waaye boo seetee comme wax yi sëñ Abdoulaye Dia waxam jii ak fi of nag tollu tey nga xaw koo xeeb wax jii mu wax ak fi of nag tollu tey mën nga ko neena na of nag am na ci sañ-sañam moo ko wax bu saytooy mbir ba am calu ko leer day def dossier yóbbu ko teg ko ci taabali procureur de la république. soxlawul sax muy jaar ci président soxlawul sax muy jaar ci soxlawul mu jaar ci président. rapport d' activité lañ koy jox boo xam ni danañ ca junj yooyee ñu teg ci loxoy procureur de la république dañ ko cee junj rek. Mm-hmm. waaw loolu ma wax sénégalais yi ne Nafi Ngom Keïta ma nekkoon président euh, de nag ba mu daataan dem fukki weer ak juróom-ñett la fa def. Mm-hmm. teg na ci table yi procureur. juróom-ñetti rapport juróom-ñetti dossier juróom-ñett te ba mu daataan dem keroog bi nga xam ne indi nañu ko kayit bi koy dàq. Mhm. muy décret ba fekk na mu war a dajeeg assemblée générale xam nga am euh, FNAC dafa am ñoom membre yoo xam président moo leen ki muy fukk ak ñaar. Mhm. dañuy assemble générale bu lu mel noonu ñoom ñëpp lañu koy seet seetlu ko xalaat ko ba ñoom ñëpp jublu na kii kat daa war a dem ci procureur ba mu daataan dem ñett. ñetti dossier mhm. seet nañ ko ba tëral ko ba juboo ci yóbbu ko diggante bi mu dem ki ko remplacé nañ waxal dëgg ñetti rapport yooyu teg na ko ci tabli procureur donc tabli procureur fukki dossier ak benn nga fa yoo xam ne bu ci ne ay njombe ay njuuñ njaaj ak wuruj ya ca ne jéggi na dayoo mhm. kenn waxul lu ca jëm kenn waxul lu ci jëm. premier rapport bi sax kenn waxul lu ci jëm premier ñoom ñëpp yëpp. yëpp yëpp onze rapport yooyu nga xam teeg nañ ko. kon fi mu nekk nii onze dossiers mi ngi ci kaw procureur yoo xam ne ci of nag la jege mu ngi ci table procureur te ay ñoñam am benn bu ma la ci bu ma la ci mën a wax mooy directeur général du COUD mii. Uh-huh. ak euh, waa jii nekk pos uh-huh. ak ñeneen ak ñeneen ak bi gën a grave encore. xaw ma lu tax ñu noppi ci dañoo jot booba xam nga of nag day jot ay nit da lay bind ne la béréb sàngam day. dénonciation fay xew nangama uh-huh. bu ko defee ñu yónnee ay gëstukat booba boo demee ci bureau ñi fi ñuy fayee impôt. Uh-huh. quittance quittance boo fayee impôt. waaw nga fay par exemple téeméeri junni fay impôt dañ lay defal quittance jox la. ndekete bu baax mooy jëmmal ne yow fay nga ndekete fausse quittance lañ lay jox. quittance bu baaxul fab téeméeri ne def ci seen poche def koy at muy millions yu dul jeex peut-être même milliards of nag gëstu ca ba lépp leer nañ ñu duut baaraam ay nit ay ñu ko def ci ati ati at dossier boobee ma nga ca taabalu président de la euh, procureur de la république mooy def les fausses quittances les fausses quittances waaw c'est vrai daanaa ko dégg les fausses quittances mais boobu dafa garaaw da ngay ñëw fay impôt ñu war a jox quittance mu jëmmal ne fay nga ñu jox la ko quittance boo xam ne fos baaxul bu ko defee. ñu jël xaalis dugal sa dugal seen poche ay at. kon enquête boobu pare woon na. pare na complètement ba pare na ba ñu tënk ko ba déposé ko au procureur di la république ak yu garaaw ak am na ñoo xam ne sax wax nañ dañoo tiit tiit ba génn réew mi. waaw ñu daw jàpp mooy tour nag am na ñoo xam ne sax dañoo daw. booba dossier ngi ci table procureur alors boo ko méngalee ak dossier Khalifa Sall. waaw nga xam dañ ne dafa luubal un milliard huit cent millions loolu la ñu wax. Uh-huh. bañ fa yóbboo inspecteur général d' état mu def at nangam ñëw def rapport li gën a yéeme mooy rapport boobu ni mu gaaw a demee naka la ko président jot rek jox ko premier ministre mu jox ko. Mm, ministre de la justice mu jox ko procureur. procureur ca gaaw. mu saytu ko defu conférence de presse wax lii kii lépp lépp daal di ko joxu juge kooka it noona la ca farloo waaw boobu dossiers yi ma lay wax yëpp mi ngi ci table procureur onze dossiers boobu ak yeneen ak dépp yoo xam ne seen tif ñoo ko fa déposé blanchiment d'argent blanchiment d'argent dossier toll nii ba ñuy jàpp di koy këlëng këlëng moom moom Khalifa Sall pour un milliard huit cent millions mhm. mais am na ci rapport la ñuy dem. rapport nañu wax ci rapport rapport 2013 euh, juillet 2013. Mhm. mën nga dem muy OFNAC muy. cour des comptes muy cour des comptes muy société africaine de raffinage. nee nañu inspecteur ba seeti woon xalifa dafa ne nañu saytu caisse d'avance bi waaye am na ci rapport yoo xam ni rapport bii nga xam ne bu saar la. of nag dafa gëstoo gëstoo gëstu ba mu jeex gis lu bëree bari ay njaaxum yu dul jeex ay njaaxum yu dul jeex. mooy affaire fuel bi ñu doon wax ne la. waaw ba ba ah. tey loola ca la. Mhm. ba ca conclusion mu ne boo boolee loolu lépp laaj na ñu def ouverture euh, d'une information judiciaire contre le le ministre de l'énergie Samuel Sarr. ñu mhm. koy topp neuf milliards. milliards bu ne junniy millions la. neuf milliards. damay fàttali benn mbir dooguma la foofu. il faut ñu bàyyi. waaw saa bu nit waxee. waaw ñu jéem attaque nit kooku. au lieu ñu wax rapport moo bind loolu. mais je précise du nit moo jóg tuumal nit maanaam du Mody Niang moo wax ne Samuel Sarr moo luubal neuf milliards. rapport cour des comptes defe naa ak IGE moo ko bind noir sur blanc. rapport public sur l' de la gouvernance et de la reddition des comptes. juillet 2013. juillet 2013 IGE. inspection générale man lu ma wax inspecteur général ñooy dem. ne kii tuumaal ko nit joxoñ ko ne kii kat nañ ko seet def nañ ko ko moom mii. waaw def nañ ko ci of nag. Euh, euh, fes Fesman waaw. nit ñi dañoo war a xam fes nag ba ñuy daal tàmbali dañ ne budget bi juróomi milliards lay doon waaye ba mu demee ba jeex ba inspection générale de l'État gëstu ko di ñëwee seet nañ ne budget ba romb na juróom-ñett fukki milliards la ca gën a euh, la gën a yéem. mooy dafa am fukki milliards ak juróom 15 milliards yoo xam ne dañoo dem leb ko ci banque gouvernement bi ministère de l'économie et des finances temps waaw ministère maanaam mu maanaam mu ministre du ministère daal lañu wax uh-huh. ñu leb fukki million juróom ci banque uh-huh. waaw ne sous prétexte que ñi ñëw ci euh, FESMAN bi euh, di ci keeg ci la ci lañ leen di fay waaw fukki million boo ko lebee ci turu turu nguur état waaye yóbbu ko trésor wala nga jox ko un comptable public ña ko war a yor. Mhm. waaye un homme privé lañ ko nom homme d'affaires privé. lañ jël fukki milliards ak juróom fukki milliards ak juróom jox ko ko sous prétexte que muy fay. ba IGE ñëwee bañ mais loolu kay yóbbuwoon xaalis bi si trésor boo waree fayeeku ñu defal la bon nga dem trésor fay la loolu loolu mooy yoon yoon waaye lii lañu def jox ko benn nit di ko benn mi ngi fii si Touba ñëpp xam nañ ko mhm. fukki milliards juróom mu naax saay nga dugal Khalifa Sall ci kasu un milliard huit cent millions euh, di ko di ko di ko amende ba pare moom mu non ba pare moom mu défier leen sax na leen euh, euh, déclassifier leen rapport bi teg ko sénégalais yëpp xam lan moo nekk ci biir rapport nañ ko génne teg ba déclassifier noonu benn rapport waaw Macky Sall mii tey ba mu nekkee premier ministre moo woon ñëpp ci chantier yu Thiès waaw mar d'Italie lu ne mu wax ko fa waaw bu ñu ko déclassifier yoon tey teg yeneen rapport yi wala lañu am kersa sénégal yi quand même même ànd ak Macky Sall. nañu seetlu nañu nañu xam loolu. nañu xam loolu par exemple caisse su kii ñuy wax un milliard huit cent millions. Mhm. Cheikh Oumar Anne. COUD am na caisse d'avance boo xam ne bii fukki fan yu ne téeméeri milliards ak juróom fukk. téeméeri millions. téeméeri millions ak juróom lañ koy jox. boobu yëg naa ko xam nga yëg ko. Mm. xam nga boo ko boole muy ñeenti téeméeri million ak juróom fukk weer. pour mu ciy jënd ay légumes ak yooyu nangam nangam. loolu est-ce que du moom moo waroon tax ku nit OFNAC delluwaatoon pour def beneen enquête foofu. waaw parce que dañoo am lu ñu leen wax ak foofu nag. Mhm. nit ñi dañ leer dafa am lu ñu leen lu ñu xam man ñi daan lii ci leer yooyu ñi ca laa bokk. Mhm. ñu am lu ñu fa lii kat xew na fa lii xew na fa lii xew na fa lii xew na fa bu ko defee day def ordre de mission gëstu kër yi dem pour seet loola. Mhm. waaye ci seet bi. dañoo gis lu jéggi dayoo lu romb lañ leen waxoon ñu ne ah madame nun kat lii nu gis romb na la nga wax mara d'Italie mun leen àggale leen loolu ba pare bu ñu defee rapport ba booba ma defaat benn ordre de mission dem ba mu defaatee ordre de mu dem. waa ji dafa lank sax ne du ñu recevoir parce que xam na mbir ma lu garaw foofa la affaire caisse d'avance yi génne ak yu jéggi dayoo mais ca jamono yooyee. dem dem na sax ba mu ñu woo ñi maan pour laaj mu ne leen bu leen dem fenn am na ca kooku ku ne moo ni leen bu leen ragal dara dañ koy dàq ndaw si dañ koy dàq teguñu ci semaine effectivement ñu dàq. mais damay dégg ñoom. seen biir wax tamit yokk ci Sénégal dégg mhm. jënd na kilo ñebbe juróom-ñeenti <laughs> boobu war naa seer de. la mu lañ ne moom la jënd ci poobar ndakaaru gépp mën nañ cee dund <laughs> ak yeneen ak yeneen la ci nag lépp mënu ma ko wax tey mi ngi fii <coughs> pour nit ñi xam ko benn yoon ci benn arrêté recrute na ci ñeenti téeméeri xale yu dëkk Podor ñeenti téeméer téeméer ya ak juróom fukk ak juróom ñi ngi dëkk njum foofa la nekk maire buy dem ajjuma foofa day ànd ak ñi ko wër ñëpp ci oto yi COUD da leen di defal ba ordre de mission ak essence lépp ci turu COUD te ma ngay politique njum COUD lu mu jotee njum pap ak yu kenn mënta wax mi ngi nii tey rapport baa nga fa bu leen rapport bi doyut bu ñu fa yónnee woon IGE ak président de la république boo xam ne jàngut yoon rek lay doxal ak aar alal réew mi bu ñu fa yóbbu woon IGE mais est-ce jar naa yóbbu IGE parce que dama ko waxee noonu waxee noonu mais dañ ñëw ci corps de contrôle yi nu mu nasaxee fi mu nekk nii mais euh, ci loolu dama bëgg tamit benn mbir leer hmm. parce que ñu bëri dañuy di amalgame hmm. parce que Nafi Ngom Keïta ba mu génnee def conférence de presse hmm. directeur cabinet président de la République dafa dem ci benn télévision na amul sañ-sañ siiwal rapport bi waru ko woon def lan la loi bi tënk parce que dama dégg nag président bu waxee fii ne Mm, mën na ma jéggi sax dem directement ci procureur ku mën a def loolu mën a siiwal rapport. man na maa jéggi waru ko waxee noonu sax loolu day mel ni daf ko war a mën na maa jéggi daf ko war a jéggi loolu la yoon dafa ne euh, article 17. Mhm. loi bi nga xam ne moo teg. OFNAC euh, at mu jot nag dana defu rapport d' activité maanaam li muy liggéey lépp ci mi da koy tënk ci téere ñu ne ko rapport d' activité mu dem. présenté ko président de la république il le rend ensuite public waaw rendre public pour wax la ci loolu directeur de cabinet bi wax. Mm-hmm. rapport boobu lu ñëpp man li maa xam naa ko. waaw bien sûr man ah, dara. ne mm-hmm. leer nit ñi ba ko bëggee présenter la rapport bi. Mm-hmm. mais directeur de cabinet dafa ne ko Abdoulaye Wade amul jot. agenda am yow xam nga amul jot. nangam Macky Sall amul jot mu ñëw ñëwaat ñëwaat ñëwaat mu ne ko amul jot. ba ndaw si gis boppam. ñu teg cay fan Aminata Tall président du conseil économique social et environnemental jox ko rapport ñu teg cay ñaari fan présidente du haut conseil pour le dialogue social jox ko rapport am te yum dafa ne ko woon président amul jot en réalité ñaari xaritam yañ duut baaraam muy Siré Dia ak Anne moo tax nangu ko wax na ko sax ñu dindi ko. wax na ko mu dindi ko ci rapport amul benn werante mais ndaw sa ndaw su caractère la. waaw lii du man du sama liggéey liggéeyu mbooloo la mënu la ne. kii lank na xam nga ñaari étape la présenter président de ensuite rendre public rendre public mooy siiwal ko ñëpp xam. comme cour des comptes ni mu defee conférence na bu kenn nit na xam ne nee nañ rapport bii boo xam ne. din ci dëkk voilà euh, nee nañ mi ngi ci sit surtout gouvernement mi ngi ci site yi site waaw. sama bokki kaw gàlle yeeg sama bokki jaajoorde yeeg sama bokki ño ñooñu day am lu ñu si comme internet sax rendre public a na fi Ngom Keita ba mu defee loolu nga xam ne kii kat nangu ko jël dafa dem conférence de presse mm-hmm. présenter rapport public devant les journalistes devant tout le monde ñëpp xam li nekk ci looloy rendre public en réalité looloy rendre public waaye mi ngi ci site mais est-ce que man su may comparer waaw ak li ñu yëg ñun ci temps Ablaye Wade mm-hmm. parce que ARMP bu ñu déggee Awa Ndiaye. ak loolu ARMP moo tax damay wax ne est-ce que sax delluwunu ginnaaw par rapport ak l'information yi nga xam ne nit ñu war nañ ko jot ci dans la gestion du pays. wala tamit la presse est-ce que la presse joue son rôle véritable pour yenn kafaar yi nga xam ne. Ah. gars yi génne nañ ko. Ah. ñu teg ko ci kaw table bi ñëpp xam ko. lu am solo nga noonu. ji nga li nga wax man wax dëgg yàlla. Mhm. la ma daan xam ci jamono yi Abdoulaye bari na. ndaw su nga wax nee na moom dafa may porter plainte dama koo tudde woon awa kuddu njaay ci sama benn mm, contribution wax ci njombe mu ci def njombe yu doy waar moom itam njombe yu doy kiimaan moo tax ba ma gisee ma ñëw mu transhumé li ngay wax daw fam ak ni mu meloon ci Ablaye Wade ak li mu doon wane ak Karim génération du concret voilà waaw ba mu fi demee New York tase faak kii ya dafa wax ba daaneel ne maa ngi leen di présenté Karim may sa l'homme qui va succéder à elle l'a dit Karim Meïssa Wade la mu def jéggi na dayoo ki ñëw mu def li ngay wax transhumé daw jógee kër googee tuxoo ca Ablaye Wade ak Karim dem ci Macky Sall Macky Sall daal di ko takkal ndomboy tànk. mais au moins l'ARMP joué son rôle. waaw kooku joué na joué na am. voilà waaw organes yi dañu doon joué seen rôle. waaw waaw bu euh, euh, ARMP bu paree. dañu UG bu pare dañuy dañuy jox président de la république. mais UG depuis kat kañ kañ la gën a euh, génne rapport 2016. mooy 2016. ji nga rapport 2016. Uh-huh. dama la ko xam nga noo ngi 2017. Uh-huh. noo ngi 2010 presque jeex na. Uh-huh. rapport 2016. doo ko gis doo ko dégg. ba léegi génne gu ko. sa bokki journaliste nañu laaj lu tax. monsieur le président ah man de laajte naa ba sonn. ana rapport u UG 2016. ak lu tax nga teg ci wax na ko. sous le coude sous le coude lu fa ne lu fa ne maanaam na ku ma wax ni la mooy la mooy xam na ko man Pam man mag mag laa léegi du ma wax lu ma xamul rapport kon 2016 ba léegi 2016 yàlla 2017 am na ku xam nee na man nee na leen il n'est pas question yokk na ca wax na ne il n'est plus question de publier des rapports qui mettent en cause la gestion mais la gestion maanaam kenn mu warul fi génn kenn dootu fi siiwal benn rapport boo xam ne bii dangay ngay maanaam da ngay duut baaraam ñëwaandal yokkaat na ci leneen kay nee na presse bi di ko ŋawti ŋawtee ni te alors qu'ils sont tous corrompus mbool la yàpp na presse de na presse de mais tey rapport bi of nag génn d'abord bi bi normalement bi moo waroon nekk euh, deuxième rapport deuxième rapport Seynabou Ndiaye Diakhaté ci yoon effectivement parce que 2016 waroon na 2016 waroon na 2017 waroon laa génne rapport ci yoon. waaw jàngat nga ko xool nga ko. ah man nag day xam nga xaw naa ko yër parce que damaa waxtaan mu ne ma am nga ca ma ne ko man mënu ma ca am mbett xam nga looy am mbett da nga cee yaakaar dara da nga cee séenu dara. Mhm. da nga cee séenu dara man mosuma caa séenu dara liñ naan lecture en diagonale def naa ko ko. man liir naa ko ba mu jeex tàkk. xam naa ba nga ko liiree ba ca loo loo ca gis ci li nit ñi xaar. parce que li nit ñi xaar loo ca euh, gis. parce que man li ma li ma déggoon. Euh, su ma basé woo ci conférence de presse bi euh, kii defoon kii nga xam ne moo di Nafi Ngom. waaw maa ngi daan xaar Petrotim. ma fa la ko ba. maa ngi daan xaar Big Togo fa la ko ba. maa ngi daan xaar fraude sur quittance yi. waaw maa ngi maa ngi daan xaar spoliation foncière. Ah. quatre dossiers ah, yooyu ba man leer na ma. biir na ma. te am na lu ma ci jot a xam ne ne ne waroon na bokk normalement figuré ci rapport bi. ji nga Atepa Atepa ak ñemandoo. waaw perle waaw ñoo def dénonciation dénonciation mais c'est extraordinaire gestion foncière ni ñu saax saaxee sunu suuf si rawatina euh, booru géej bi yooyu le domaine maritime ni ñu ko saax saaxee dafa jéggi dayoo loolu lépp nga fa bàyyi na fa na fi na fi bàyyi na fa au Euh, lu ma huit kii yoo xam ne tàmbali woon nañ di ca gëstu. Uh-huh. juróom-ñett jàppuma yëpp yoo xam ne tàmbali woon nañ di ca gëstu waaw euh, Petro-Tim nee nañ c'est en cours nee na ñi ngi ci nekkuñu ci dara man xam nga lu tax la ko. Uh-huh. ki fa wuutu na fi xam na la tax ñu jëlee fa na fi du ko def mukk waaw ah, parce que Petro-Tim na fi jotoon na fee dem États-Unis enquête looloo il faut ñu taxaw ci taxaw ci tuuti. ayca nga Petro-Tim. Uh-huh. contrat bi bu njëkk a signé Karim ko signé en tant que ministre de l'énergie keroog ba mu koy signé contrat bi di ko jox pour mu ex mu exploiter sunu euh, kii. pétrole pétrole bi sans supposé am pétrole. teg nañ si ñaari fan ñu soog a jëmmal Petro-Tim maanaam moo la ko may euh, def. liir liir liir liir liir bu juddoogut la la woon bañ koy signé contrat bi jëmmalaguñ ko. maanaam dañ ko jox tur ba pare te juddoogul te juddoogul mu ngoog contrat après du tudd wut tudde boppam Petrotim contrat bi bala moo am hmm, dëgg-dëgg kii dangay ngay jël décret décret décret bi président de la république Abdoulaye Wade defaroon na ko ba signé ko hmm. diggante mu daanu man jàpp naa ni sax parce que moom xam nga ku yeewu la moom xam naa ni moom moo moo ko tey parce xam ne waaw la la nekk ca du ma ca sori loola ba Macky ñëwee mu fekk fa décret bi ñu signé waaye xam nga décret signature rek bu président de ak bu premier ministre amul benn valeur. faut ñu publier ko il faut d' abord ñu jox ko numéro. Mhm. jox ko date dañ ko yóbbu secrétariat général de la présidence de ñu jox ko numéro. jox ko date enregistré ko publier ko journal officiel. bu boobaa lay nekk décret bi Macky ñëwee gis loolu. mu commencé woon am coow mu ne IGE booba Nafi Ngom Keïta mooy vérificateur général IGE je me rappelle seetal leen ma ba ñu seetee ba def seenu gëstu ñu ñëw ne lañ ko wax président de lii de na yem fii ndax sa rakk sax mi ngi ciy dégg jubut dara dara jubu ci lii daal na yem fii donc ci nu kàddu yu wér a wér waaw parce que lii nangam nangam nangam nangam mu ne waaw d'accord xëy parce que rakk ji dugg na mu jël décret boppam ak exposé des motifs boo xam ne ministre alingu Ngouille Ndiaye mii moo ko def. Uh-huh. ji nga exposé des motif bu mel ne boobu dafa war a wane ne parce que code pétrolier wax bala ñu laa jox yooyu contrat dafa war a am noo ne loo ma ne. Uh-huh. da ngaa war am capacité technique capacité financière maanaam da ngaa war a toog ci alal ju am doole am jum jumtukaay yu am doole. Uh-huh. am expérience cest à loolu ngay wut def nga ko fee def nga ko def nga ko fee mu ñett yooyu euh, euh, kii financière ba. capacité financière capacité ak expérience. Mhm. gone guy soog a juddu mën naa am loolu. <laughs> Aly Ngouille Ndiaye c'est pourquoi Aly il a inventé des conditionnalités exposé des motifs c'est c'est basé sur du faux. Mhm. booba décret la signé. ñu jox Petrotim affaire bi Nafi Ngom Koyta songoon na ko ba la waxal dama lay wax ni wallaay Nafi Ngom Koyta bu fi nekkoon man waxuma ko pour man yàlla ma tax di wax bu fi nekkoon ba la nga ni mm, mm, guerre dana am lu ci wàññi amul benn wérat dossier yim mu songoon ji nga bii Petrotim bii mhm. na dafa amoon dañ bari ko xamoon ci bitim réew mhm. am na benn euh, kuréel bu ñu tuddee Euh, euh, caisse nationale mhm. contre la corruption jàpp nagal ma voilà agence nationale contre le crime agence nationale contre le crime mhm. ñoom ñu ñu am xaral lañ ci gëstu ay njaaxum yu mel noonu dem na ba am ak ñoom rapport ba ñu ne ko da nga yónnee ay mm, ci say kii ay ay ay experts en ah, machin pour ñu pour ñu succéder demoon nañ ba foofu waaye li tax ma wax la ñooñu waaye dañ ne ñooñu dañ ne ko ñi nga nu yónnee na nu wax ñooy kan pour nu gëstu ba xam ñoom ñoom seen bopp set nañu parce que bu ñu setul duñ leen recevoir. Hmm. ca jamono yooyu lañ ko fa jëlee. dem na ba États-Unis mais Petro-Tim bu ñu fa bayoon ndaw soosu. lépp leer. mais man dégg naa dañuy wax ne en essence mais dégg naa dañoo génne gëstu nañ ko ba raxas lu baree bari ci rapport Petro-Tim bi loolu laa yot comme information. léegi mais am na loo xam ne mënuñu ko raxas. waaw léegi nag am na beneen mbir boo xam ne of na daan ko def mooy déclaration de politique générale. déclaration de patrimoine déclaration de patrimoine am na lu ci président Macky Sall waxoon en 2014. Mhm. ma déglu ko ay ca région ñu déglu loolu ñëwaat ci plateau bi. Elle attend cette déclaration de patrimoine, en tout cas avant la fin de l'année, puisque c'était un engagement fort dans notre gouvernance qu'avant la fin de l'année 2014, la déclaration de patrimoine deviendrait une réalité. li décembre 2014 la ko waxoon. waaw ne yéen ñëpp def leen seen déclaration de politique générale fin décembre 2014. ni ngi ci octobre deux mille dix huit mais ci rapport bi euh, Seynabou Ndiaye Diakhaté génne wax na sax na y' a plus de trois cent personnes et plus yu deful déclaration de patrimoine <coughs> maa ngi yéglu xam nga li ma la wax sànq man waxtu ma dégloo Macky Sall damay am kersa yàlla xam na ko waxtu ma ko dégloo damay am kersa. Hmm. looloo tax bu ma ko waxee am na man wax dëgg yàlla wéguma ko comme président de la république. waaw yi nga lii muy wax gëmu ci woon dara xam nga lu ma ko. Hmm. am na ñoo xam ne ñii dañoo lank ne duñ def seen déclaration de patrimoine moo ni na fi bàyyil jàmbur nga ne maa la wax lii am na kum fa dajel am audience ñu dajee ci salle kii ba moo kii yow doo def sa déclaration nangam nangam kii góor gi mer mer bàyyi jàmbur bàyyi jàmbur bàyyi jàmbur wala yàlla maanaam Nafi dafa dajeeg moom ci. wala da ko yow dafa góor sa déclaration de patrimoine waaw kooku dugg clamé ko président président waaw kii sax waaw. bàyyi leen bàyyi jàmbur day def na ko def na ko ci keneen am na ñoo xam ne moom mii moo moo moo moo tax ñu lank moo leen lànkloo moo tax lii bu ko waxee gëmu ko te lii ma la kat. lu ma leer nàññ la. moom ma yi bu ko déggee xam na ko koo kee ma wax bu ko déggee xam na ko bàyyi leen jàmbur bàyyi waaye tuuti. parce que demoon nañu ba tiit xam nañu ne lii muy wax gëmu ko moo tax nanguwu ñoo def seen déclaration de patrimoine bu ko gëmoon ba tey jël na sanction. Mhm. booba yàgg na 2014. 2014 nga ni def leen président de la République bu taxaw wax nangam def leen lii def leen lii def leen lii ñooña lànk toog fa ñu toog bay nekki téeméeri téeméer ana lu mu ca def léegi lum mu ca def la mu doon gëmu ca dara. comme moo xam yu bëree bëri yi ngay wane yi ngay yi ngay fàttali jamono ju ne. Mhm. lu ra loolu rafet la del fàttali. Mhm. waaw mais tey jii lan moo nasaxal sunu kuréel yi est-ce que waruñoo dem parce que bala passé maa ngi waxtaan ak benn kilifa ma ne ko CREI yi ñu mhm. ñëw ci CREI yi balaa ñu ñëw oh. CREI yi man jii xam nga dangay faral di wax ne Karim def na. ma ne leen mais niñ jaaralee CREI yi day mel ni da koy jox dëgg moom ne fu mu nekk nii CREI yi moom rek moo taxoon mu jóg. mënee su ko weddi. mën ne su ko weddi parce que ba ñu ñëpp ba ñu ba ñu koy tàmbali. Mhm. ñaar fukki nit ak juróom la ñu wane ñu ne ñii kat. liste sax yor naa ko. waaw ah, dinaa leen ko jox. dinaa leen ko jox incha allah waaye ba fi mu ne daal Karim ak peut-être kii nekkoon domaine. Taïbu Taïbu Ndiaye mais ana Ousmane Ngom. dem na. dem na dégg nga waxam. déedéet. mais ñoom ñii ñëpp Madické Niang et cetera et cetera déggatoo euh, wax naa ni d'ailleurs am na fu ma waxee sama kii da ko bu makki nag nag dëgg-dëgg da ko war a da ko war a tas. tas créé waaw. waaw parce que xaalis ña fa nekk. xaalis bi et puis du loolu. ña fa nekk ña nga fa nekk di dund. di dund di ñu leen di jox xaalis di leen fay par weer. par la te amatul benn njariñ amul njariñ parce que li la koy waral. Euh, Ndaw Aliou Ndaw ka nekkoon premier procureur. Aliou Ndaw. xam nga en lañ ko dàqee. waaw xam nga lu tax. Hmm. dafa tàmb lool dossier Madi Kenya dégg naa. jeex na ak ak keneen ak. ak Samuel Sarr lool loolu loolu a tax ñu dàqu maanaam na fa yem waa léegi nañ am honnêteté gu toll ni ñoom ñoo ko waxoon lañ ca doon seenu peut am nañ ko jàpp nañ seenum kërim mais sunu millions yañ fay def. wax dëgg yàlla xëy na feneen. mais ñoom du question sax jàpp Karim parce que ñoom su ma déggee ñoom parce que dégg naa le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall mu wax loo xam ne man dama jàpp na dafa graaw man mm. parce que bu ne Karim bu ñëwee fay ñu sunu cent trente milliards ñu tëj ko ci kaso kon Karim bu toogee Doha man nañu bañ a fay sunu cent trente huit oh, en réalité Doha sax da caa warutoon waaw jéeg nga bu doon Sénégal doon nekk réew réewu démocratie mu mag a mag ak euh, xeet woo xam ni dañoo jàng xam seen bopp xam xam dëgg dëgg dëgg benn attekaay boo xam ne bii ñu moom seen bopp lañu ñu di atte dëgg ak assemblée nationale boo xam ne député yu mat député loolu lépp bu ko boole woon booba moom mi ngi mi ngi ci kaso yu ba tey doowaa moo ci warul tanam luy ndey ñu jekki ci ko wax daan seen bopp mu ni gracier na ko ak i condition guddi ñu fab yóbbu doowaa exilé exilé loolu mooy la mais daanaka Nafi Ngom Keïta sax daf ko exilé de euh, de nit ñi Sénégal daal doy na kii man. da ko exilé parce que tamit loolu loolu nañu waxante dëgg. dama ni IGE. kay mu ngi IGE mais da ko exilé daanaka États-Unis eh, dama ni man li may wax loi bi dafa ne boo nekkee en détachement bu détachement ba jeexee dangay ngay. dellu dellu fi nga nekkoon waaw. mais président de la république moom moo ko fa bëggul a gis moo ko wax je ne veux pas l'avoir nañ ko wutal beneen affectation waaye bu fii moom bu mu fi ñëw. lu tax demul foofu ba tey nangu koo gis ak bët loolu maa la ko wax. Mhm. parce que dafay ndaw su am fulla ji nga of nag gii ba mu xamee ne mi ngi mi ngi mi ngi kii gaay mi nar a indi jafe-jafe man mënuma ko wet def lu ne dig na ko ko pour mu bàyyi. poste vice gouverneur de CEAO waaw mu ne ko man damay def sama liggéey. Mhm. voilà Sénégal li fi xew. te lii may wax sénégalais yi man lu ma xam la te ñoo xam lañ ne moom noonu la demee. mu la wax fii lépp gëmu ci dara. Bictogo. waaw Bictogo affaire bi dédommagement. Euh, am na réinformation bu ne nee onze wala douze milliards. gaa yi ñu ci dix huit voilà waaye jiitu nga ma ci. dégg naa dem na ba dix huit. waaye loolu kay nag laaj na gëstu wax dëgg yàlla. ñu xam seeg bi yan condition lañ ko joxe yan condition lañ ko jëlee woon. ak yan condition tax ñu arrêté contrat ba. ak sur quelle base lañ ko de voilà dañ ko dédommagé. ñii ne onze milliards ñii ne bu jaadoo ñu ne jaadu na bu jaaduwul seen bopp sax jubawuñu ci ci chiffre exact bi. waaw loolu laajul nag comme moom moo ne bu ñëwee day jubal day sellal day leeral. Mhm. nanu leeral loolu. waaye ay milliards xam nga pam pam pam na sunu mbokk milliards junni million la million bu ne ñaari téeméer junni la. mais léegi li may dégg ci sax milliards yu lu ah moo bari daf mara d'Italie alors am na ñu ci tëdd ci milliards ñi ngi fii kenn tudd leen ñi ñi amul ndey rek mu hmm. def naa benn compte moo Sénégal le pays de euh, Kumba am ndey et boo amee ndey loola neex def boo amul ndey yaa tooñ sa bopp wallaay li wër président de la république bis bu soppi ko amoon ci réew mi président de la république bu jub bu sàmm kàddoom. Uh-huh. buy aar réew mi. Uh-huh. aar aar alal jeeg yooyu ñëw fi. Uh-huh. wala ñu bari dinañ génn réew mi wala ñu dem kaso. dem kaso léegi euh, maa ngi tax corps de contrôle yi est-ce que jotul timit prochain président bii di ñëw. ñi nekk ci bopp corps de contrôle yooyu. waaw ñoom. ñu audit leen. xool nan lañ yoree woon corps de contrôle yooyu. est-ce que defuñu ay détournement de fonds de deniers publics mm-hmm. Mm-hmm. parce que munoo yor corps de contrôle mm-hmm. ñu sant na liggéey bu ñu wel mettre la dans de très bonnes conditions ah ci kuréel yëpp te yow dara lu toll ci juróom at doo ko def est-ce que loolu jotul tamit ku ñëw ne man bés boo jëlee réew mi corps de contrôle yëpp ñi ko yoroon ñëpp dinaa leen saytu daf ci am loo xam ne fu mel ni IGE waaw ñoom mu ñu benn sañ-sañ ña nga toog ña toog rek président moo jég bi chef ordre de mission boo leen ñooñu xam mënoo leen ko reproché. Mhm. seen bu ñu deful dara mënoo leen ko reproché ñoom. mais cour des comptes baal ma de génneegul. ba tey cour des comptes waaw cour des comptes bu njëkk. moom quand même daan na fi daan liggéeyam. daan na génne de manière régulière man di ma jaaxal fan temps yëpp. ah ah kenn gisul 2016 génn. waaw 2000 bon nag day dëggal kaddu gi ñu ne président de la République moo ko wax ne rapport dootu fi génn mais même bu ko président de la République waxee mais yéen yoon yoon moo féete kaw président de la République. Mhm. moom yoon la leen may. bu ñu defee seen i gëstu ba pare. ñoom rek ko ko amoon d'ailleurs ñoom rek ko ko amoon tey kenn kenn soppeegul. loi bi ci diggante bi. loi moo moo moo moo moo féete kaw président même bu président de waxee loolu ñoom dañoo war a jël seen i responsabilité di génne seen i rapport bu leen dàqee ñëpp xam. <laughs> ne ci lu lu dëgg la leen dàqee. par exemple waaye li nga wax pour euh, ñee ñëw am nañu d'abord li li gën a njëkk mooy. IGE gi da nga koy génne présidence de la République. ci yoon ci yoon da ngay day génn day génn euh, ci man sama xam-xam mm, dugguma ci seen xool ñëm ñëpp waaye dañu koo war a lu lu que dañoo war a tas lépp repartir sur de nouvelles bases IGE ñu seetaat nuñ koy tegale kii nuñ koy tegale kii nuñ koy tegale ak yan yan yan yan doole lañ leen di jox. bu nekkee da ngaa bëgg a. bu nekkee loolu laa la dama ne boo dee da ngaa bëgg a xeex ger am na loo xam ne lii corps de contrôle yi noonu la ñu war a mel. Mhm. da nga leen di jox doole. ku mel ni euh, comment ça s'appelle le parquet financier. Mhm, en France en France. ñooñu dañuy xëy dem mais c'est extraordinaire euh, bu ñu la kii dara rek dañuy xëy xëy xëy la ubbi nga ubbi. sa tiroir sa document. yëpp mi ngi mel li ñuy def Mélenchon fi mu nekk nii jamono yi jamono yi. ji nga loolu bu xewoon suñu réew mi ñu bañ a siiwal cinq yooyu ca temps yab lay wàdd. duñu ko hmm. def nag parce que ñoom jubalu bugguñoo jubal. ji nga ñooñu wax bu ñu leen songoon ca booba bañ daataan génn réew mi jël seen i ordinateur jël seen i nangam wallaay danañ fa gis lu jéggi day mais dama xalaat sax léegi sama xel dama xalaat ne oh. siwal bi sax siwal bi sax peut-être est-ce que amutoon benn objectif derrière moo di après vingt cinq yooyu pour ñu ñëw non non euh, cest que xam nga toog nañu ay weeri weer soo ko wax hmm, waaw mais booba ñu xam nañ ne kër yi dañ koy kiiwaat fu ne ñu dem fa bañ daataan nangu seen passeport hmm. rawale nañ li yoroon bu yàgg am na ñoo xam ne ñii seen boo demee seen ordinateur doo ca fekk dara. mais ARMP tamit pose problème. ARMP. waaw ki fa nekk mandaam jeex na un an euh, dix huit ngi nii mandam jeex. conseil constitutionnel. conseil constitutionnel waaw. président Sénat. président Sénat. waaw. te du ci wax dara. conseil constitutionnel ñaari nit seen mandat jeex na. waaw Sénat moom. waaw. Euh, ñu bari seen mandat jeex na foofu. ñaar wala ñett. waaw du ndir moom tamit mandaam jeex na. Sénat tamit war nañ ko auditer parce que am na yu bëri yoo xam ne. Euh, maa ngi ciy waaj benn gëstu bu am solo boo xam ne. Mhm. Mhm. dina jëm ci wàllu assurance bi ñuy mhm. assuré foofook essence beeg. par trois mois yooyu dinañ ci dellu si waat mais loolu ci Sénat la jëm. parce que am na loo xam ne faw ñu lijjanti ko. absolument mais euh, ARMP. nga war a chargé yow. autorité de régulation des marchés publics. nga war a saytu loolu. war a nekk daal li daal légalité nga dans l' illégalité ça pose problème. absolument absolument loo loo def amul benn kii. loo def est-ce que def parce que mas naa ko laaj benn magistrat. ma ne ko mais gis nga kii est-ce que bu defee lii duñ ko mën a attaquer. waaw ah, kay ah, bu fekkee ne ca suuf. waaw président jëlul décret prolongé ko te yaakaaruma ko bu ko deful li lu mu def warul am valeur juridique mën nañu si na ko attaqué jeexal na il a été élu pour un certain nombre d'années at yooyu passé jeex na waaye wax dëgg yàlla nag nañ ko fa sampaat wala ñu wut nit tegaat fa mooy ka 15 millions de sénégalais lañu. ak lan moo dox diggante président de la république ak euh, waa jooju xaw ma nan ña. Sayer Niang Sayer Niang et eh, man bu ma doon Sayer Niang sax. mais li ñuy wax li yëpp ay texte la waaw on dit man mandaam jeex na depuis d'ailleurs sax ña nekk ci biir ARMP ñoom ñoo la koy wax ah ñoo ne leen ñoo man man bu ma doon mooma ci boppam mhm. man maa fay jóge jeexal na tey jii euh, suñuy jeexal yu suñu émission dañuy waxtaan ci wàllu politique gis naa nga gis nga génnee benn euh, contribution fan yi euh, jëm ci attaque verbal yi jëm ci kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko tudd nañ ko fa wax am na gis naa ngi def ci benn contribution bu doy waar. <laughs> ndokk ba moo ci laajee <laughs> parce que dama am sama bokk yu ma woo. Euh. ne ma yow liñ lay liñ lay ji wax man ni lan ñu ne danga ne Sonko doom waram la ñu war a rey. tafar <laughs> la voilà et puis am na ñeneen sax moom ah yow. non non non comprendre style bi ah, moo di loo ko waxee. Euh. pour sama bokk yooyu ak ñi nga xam ne am na saxu mm, tasatu xabaar bu présenté wax présenté ko noonu kooku c'est très grave pour un journaliste. il faut savoir. quand même. Euh, xam nga yoo xam ne foog maîtriser xam nga li xew ci jamono yi. Ousmane Sonko fii Ousmane Sonko fii lu ñu wax ko Ousmane Sonko. ba àgg ca loolee. loolee ki ko wax ñëpp xam nañ ko Ousmane Sonko doomu xaram la dañ koo war a rey nit ñi rek. mooy ci déclaration Sonko waaye jooju wax mais daanaka waxuñu ci dara moo tax ma def sama. Euh, contribution contribution boobu. tuddee ko noonu. Mhm. pour sama bokk yi xamul bu ma bindee di ko génne ci taskati xabaar dama koy wutal mhm. bopp dama koy wutal. Mhm. titre titre tur maa ko tuddee noonu. waaw pour wane na ca biir. waaw kii nga xam ne ñu ngi koy ŋawtu ŋawtee kat wax nañ ko lu gën a garaaw loolu. tekk ko wax daa defee ku ko ca. wax ji mooy lii. looloo tax te kooku am ay responsabilité la CEDEAO vice président de l'Assemblée on ne sait naa nekk président de la République on sait jamais wax loolu mhm. moo tax ma fésal ko ca kaw mhm. tuddee sama article bu loolu jox ko bopp tuddee ko ñooñu comprendre wuñu lire lire naa ko bu baax Sonko moom ak waa këram mhm. xam nañ fa ma leen teg ñoom man mii xam naa fañ ma teg te ba ma ko bindee waa këram laa ko njëkk a yónnee. Mhm. donc sama mbokk yi wax nañ daal man magum jëmm laa. mais fan la ñuy mën a toll ñu def ay débat d'idées ñu nekk di saagante di waxante lu bon. Sonko génne na téere mais man dama ji tontu leen ko ci téere bi. il faut fair aussi la yaa am dafa am amalgame dañ naan débat c'est un débat stérile nangam nangam kenn indi fi proposition kooku amul. am mais Sonko. Ah. mais assemblée nationale nga xam ne c'est le lieu privilégié du débat. Mhm. liggéey ba mu fay def ñëpp gis nañ ko. absolument bis bu ne. ci ce n'est pas le maire de c'est l'un des maires mais amul werante bis bu ne mu ne la nii niñ koy doxal doxale du nii man bu ma ñëwee nii laa koy doxale affaire pétrole gaz ba mu ciy wax do yemul ca wax ja dafa bind dafa bindub téere ba pare non ma li ma bëgg te lool maa ngi koy maa ngi koy sàkku waaw boobu ba léegi mi ngi leen di défier waaw ci pétrole bi waaw ne ku bëgg ak ku ñeme. waaw doon kilifa nag. Mhm. waxuñu nag n'importe qui. am responsabilité. ci état bi. premier ministre. doon na ko. Mhm. doon na euh, Serigne Mbuub. Mhm. doon na sax même président Macky Sall tuddoon na Aliou Ndiaye nag ku ñeme. na nga ñëw toog. débat public. ñu arbitré ko. Aliou Ndiaye bis bu ne mu dut ko baaraam. waaw ku ko ñeme mu ne nañ ñëw toog ñu def un débat public. waaw bu wér. boo xam ne je pense que. mi ngi leen di mais il est dans le débat. il est dans le débat. ba mu le 16 moo indi moo indi coow lépp. Uh-huh. keroog ba mu présenté livre vision boobu. Uh-huh. solution pour un Sénégal meilleur. Uh-huh. ak lam fa dajale ci mbooloo. du mbooloo yu car de. mbooloo mu dul jeex du xaaj. engagé man Sonko demaluma fenn man magub jëm la damay seet nit ñi man damay seetlu nit ñu baree bëri mu présenté livre lii laa xalaat lii laa xalaat lii laa xalaat indi yaa nga woon fa. indi ay taskati xabaar ku ne laaj lu la neex. mu tontu mais kooku. mi ngi ci débat c'est les autres peut-être mais ko Sonko mi ngi bu ñu wax ñu ne nangam débat stérile pour lui Sonko et dans le débat. dégg nga am na programme leer na leen. nañu ñu ci des nañu nañ nañ ku nekk génne sa programme et je pense que c'est ça loolu mooy élever suñu euh, niveau de démocratie nag sank lii la euh, salafiste la non salafiste bi moom ma dama na leen dama bëgg ngeen wax ma est-ce que bu ñuy déposer candidature yi conseil constitutionnel dañuy rangale candidat yi ñuy tari Fatiha wala ñuy tari te Baqara ba Naas amu ci. ji nga constitution. président la ñuy élire élire voilà constitution waxul ne président day lekk lii day nekk day nekk lii. citoyen sénégalais am un certain nombre de kii yoo remplir. nun xam nga président bu mu bëgg. boo xam ne boo ñëwee liñ yaakaar da ko def. coppite yi nu yaakaar rupture yi nu yaakaar juróom benn fukki at yii ni ko réew mi yore. ni ko yore booba ba tey baaxul ñëpp xam nañ ko ku ko wëlbati leen bëgg ku ñëw pour wëlbati ko nag ngay tiijaan ngay murit ngay xaadir ngay nangam ngay nangam du sunu problème doon nañ ko jub ànd ak ñu jub sàmm alal réew mi sàmm sa kàddu dégg nga nit koo xam ne kii manis na la wóolu bu ko defee lu la neex nekkal waaye diw nañu bàyyi diw murit la diw nangam diw nangam diw nangam yooyu ay caax ma caaxaan la ci ni ñu koy waxee néew ma murit ak kii nag nit ñi fi gën a gaaw waaye diw murit laa rek war nañ maa fal diw nangam war nañ murit yeeg tijaan yeeg mais bu ñu demoon ba toll foofu ko jërëtul dama yàggale waaw mais foofu tonton dama wax ne bu demoon ba yegg foofu waaw jaratu ñu def élection waaw nañu wër tarixa yi rek ñu ah, ñuy muy ne affaire bu tournant bu ñuy yoree après ñuy yor ñuy yor ñuy yor ñuy yor. ça n'a pas de sens. am na loo xam ne aussi ma sama bokki murid yi sama bokki tijaan yi sama bokki xaadir yi mag ki def na fi nangam te baax na fi jàkka rek doyul pour ko def jàkka jooju fu mel ni tuuba ay millions yi bindu dafa ne. Touba bu tawee gis nga Touba ni melo ni mu ni meloon. bu mm-hmm. tawee. Mm-hmm. ma Touba dafa am problème mu assainissement. Mm-hmm. problème extension électrique. les grandes banlieues amuñu yoon amuñu kii amu eau potable amu fa alors que ak côté. Mhm. ci Touba Bogo am na fan nap boo xam ne bii nañ ko waxee du jeex di ndox mu neex a neex matul 7 kilomètres mën nañ fa indi loola boo doon laaj waa Touba loo ci lii ma la wax ak leneen ak paju fu ñu faju hmm. seen bu faju boobu moom am na benn scandale bu rëy bu ci am eh, ellipse eh, ellipse walaay walaay <laughs> boobu boobu dinaa ci dellu si ellipse. dama ne <laughs> Touba looloo leen gën laajoon diggante autoroute à péage ak loolu ñu ne nañ ñu defaral suñu réew mi ba pare. Mhm. parce que autoroute à péage du wér du wii. te autoroute à yi ña koy jariñoo du doon sénégalais nañ ko xam bu ñu paree ay turc lañ koy jox wala ay marocain wala ay chinois ngay fay 3000 4000 bala nga fa jaar néewuma autoroute à péage baaxul waaye ñaari réserve am naa ko ci. fukki euh, téeméeri kilomètre ak fukk ak ñaar. Mhm. yoo xam ne suuf fu kese ngay jaar léeg-léeg rek nga daaneel genn garab du montagne du dara du leneen ñeent fukki milliards ak fukk ak juróom-benn quatre cent seize milliards pour cent douze kilomètres boo demee maro gi ak yeneen réew moom président de la bi muy joxe na fi exemple lu euh, Bamako Ségou autoroute la mu jar gën a gudd fii lépp mais xaaju la jar loolu boroom xam-xam yépp yi ma laaj. neeñ ma bi autoroute mënul àgg deux cent milliards. très bien waaw quand <laughs> jërëjëf tonton Mody euh, waxoon naa leen ne. Euh, den dellu si euh, ci deuxième partie bi avec Sayer Seck vice-président de la fédération sénégalaise de football pour waxtaanee gaynde yi euh, suñu premier invité nekkoon Mody Niang alors on va faire une petite pause pour recevoir notre second invité Sayer Seck et puis on va parler de football avec l'équipe nationale mais aussi du championnat on va parler de l'état du football sénégalais et on fait une petite pause et on revient sur ce plateau